mbok yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag la samedi 31 mars 2018 ñu ngi fii stade Léopold Sédar Senghor ci balla gri point com gis ngeen ko Gris Bordeaux ngeen di seen noonu ci ginnaaw mbër mu dugg si stade 9h c'est la première fois ñu gis ko ci histoire làmb daan nañ gis midi daan nañ gis une waaye tey nag 9 ci suba la Gris Bordeaux ñëw fii ci làmb ji war fas fi yéene nag xaar adversaire am adversaire am nag di Balla gay de xam naa ne soreetul waaye gaa yi képp koo xam ne daal dem nga bëgg kot boo yeboo nga teel a dem boo demee nag boo laajee buñ la ne amu ko nee ko demal ci paiement de service bi bu ko bësee rek bu wàccee foofu yaakaar naa ne di nga fa gis lii nga xam ne dina fa gis li nga xam ne ni mooy code bi nga xam ne dina la ko mën a jaay waa leneen li ci des nag ci ay image man ngeen xaar man ngeen ko xaar ci tv point com xaar ko ci Sene News wala ngeen xaar ko ci Senego wala ngeen xaar ko ci Actinet waaw foofu yëpp dingeen ko fa mën a gis waaye lu ci mën a doon daal direct moom ci ji ku amul code yaa xam Sénégal nga ne wala nga nekk à l'étranger doo ko mën a seetaan ndax nag tey benn site tamit du jël làmb ji dugal ko fi mu nekk nii dérét sit yi ma leen wax lay doon rek li TV lay doon balagri point com Actinet Senenews Senego kon gars yi Gris Bordeaux ngi nële Balla Gaye 2 gisaguñu ko waaye lépp dina leer. mbokk yi comme ni ngeen ko xamee woon rek. bëgguñu benn information raw leen ci combat Balla Gaye de Gris Bordeaux kon ci ballagri point ngeen koy xoole moo tax nag tey ñu ngi waat stade rek fas yéene laaj Ibrahima fi mu nekk nii fu ñu toll ci wàllum euh, Balla Gris point com bi pour nit ñi ko seetaan ak fu ñu koy seetaan Ibrahima. waaw bu may njëkk a wax mooy euh, ginnaaw bi ma la nuyoo am na ballegri point comme dugg na mais aussi am na senego point com dina wane combat bi ak senenews point com ak actunet point net ak lutte tv point com site internet yooyu yëpp ngeen di dégg dinañ wane combat bi mais duñ ko wane gratuitement ñu koy wane il faut nga jël code boo xamante ne moom nga jënd au niveau du au niveau de Joni Joni wala boog nga fay ak sa carte bancaire une fois que nga dugg ci site yooyu noonu site yooyu ma wax déglu ko bu baax senego point com ballegri point com senenews point com actunet point net et même luttetv.com boo ci nekk code bi nga jënd ci jooni jooni bi dina valide boo ko dugalee rek vidéo bi dina mun a ubbeeku 17h30 nañu commencé live bi mais déjà gis nga ni ñu ngi may ay quelques vidéos Gris Bordeaux mais li ngeen di am exclusivité doon lañ koy may mais live bi moom combat bi en direct ci gri ballgris.com kese lay doyee ak ak comme sene news ak yeneen yooyu mu wax actunet waaw mhm. am leen la su bëggoon yokkaat waaw peut-être pour code yi bu ngeen demee ci jooni jooni ñu ne leen actuellement code amuñu code c'est parce que xamuñ naka lañ koy jaayee da leen di wax ñu bës ci paiement de facture bu ñu bësee ci paiement de facture dinañ gis ci suufu rapido code ballegri point com nga fay 1500 bu dee diaspora doo jot benn code diaspora automatiquement carte bancaire ngay duggee da ngay dugg nga dugal sa email ak sa mot de nga fay ak sa carte bancaire puis nga jot benn email bu lay wane ni que accepté sa paiement puis après loolu noonu boo duggee ci site bi avec sa email ak sa mot bi nga identifié woon moom ngay dugg dugal rek vidéo bi mën a ubbeeku 17h30 comme je vous dis incha allah. filmer leen tuuti différent angle rek après ñu jël wàcc. ma dindi barrière. non non non dindil ko dindil bi rek. Paa génne woo ma li ma la waxoon. Pardon, ni si nous.

Baba, this is no way. ñoom bu ñu soxlaa teel a ñëw ñun bu ñu bëggee place man teel a ñëw mais tey rek ngeen di yàq su tafaatin bi tey ngeen di xam ne ay bànn ngeen ko sekk ngeen leen daan su ma leen yàq ci saa tey da ngeen di daan xam ngeen ko sax Dakar ngeen yëg. Sëñ Ndiaye ne ko Aliou Sall la mënuñoo daal. yi di yomb. salaamaaleykum. ak jëlul peel. mooy manager Gris Bordeaux. salaamaaleykum. salaamaaleykum papa. ça va te loo leen dikkee confiance confiance moo tax ñu ñëw heure bi ñu ñëw ñoom moom si si on n'était pas confiant du ñëw heure bi quoi waaw. lu tax ngeen ñëw heure bi euh, ay dégg naa 9 heures 10 heures mooy yéen a ngi see salle bi. mënoon nañ ñëw un peu plus tôt sax affaire làmb moo moo moo mel noonu làmb ay tegtal la ko su ñu ñëwee heure bi rek parce que dañu war a ñëw heure bi ko euh, ban état la seen bët toll instant bi. xool ko ko xoolee xam nga état bu mu nekk. Balla Gaye sax nee na ko entraîné nga ci seen kii face à face boobu entraîné nga kon Balla Gaye su toogee ba ne booy sa adversaire am entraîné nga ça veut ça veut dire tout ce que ça veut dire ndam ngeen bëgg quoi. incha allah moom la ñu ñaan de incha allah. salaamaaleykum Baara Ndiaye. waaw naa leen. naka mu. waaye sant yàlla bu baax tey fajaru ngeen de lu xew dégg naa Kouthia nee na yéen da ngeen doon ni balance ci buntu stade ah, pourquoi pas. Guinée bëgg Dakar ku yëg tey da daanu loolu leer nañ laa la wax. tey. confiance total préparation bu extraordinaire ci côté yëpp physiquement mystiquement moralement mentalement relaxement tey. dégg naa sàmm ba ngeen ñëwee da ngeen doon xeex ak waa Balla parce que dañ leen jiitu fii yéen ngeen ñëw ngeen ne. ku ku jiitu mooy njëkk toog ñoom amul teel place mais ne fak ngeen nekk quoi. jiitu ñun koy wax dëgg si stade bi moom kenn jiituwul fi ñun waa ñi organisé sax ñoo fi nekkoon doon <laughs> nga naa ma jiitu ñoom danoo bàyyi jiitu ñoom pare nañ si bàyyi la wax lu leer nañ laa la wax moo tax ñuy ñëw fii pour bëgg a perturber mais ñun loolu perturber wunu tey combat doomu daal la wala wala wala wala la wala gis nañ ta mu ne léegi bëri ngeen di indi doon xeex gars yi naan gi du rek la mu ne yéen tey loolu indi. li si mën a xam daal mooy yor nañ fital ndaw yor nañ fit yor nañ feles yor nañ lépp guerre bi moom bàyyiwun benn armo foo xamante ni balu fital bu mun faa dem ñu jël silence bi ni ko si piw foo xamante ni jaasi mun faa jaar ñu jël paaka jam bàyyiwun dara. dañ ko gis mu relax toog yor portable am di manipuler ban erreur forme la nekk nii ba nekk relax nii am relax nii. parce que dafa pare dafa pare dafa pare moralement dafa pare si lépp parce que tey jii boo xoolee boo xoolee yow gisa gis sa bopp. tey dafa ñëw relax ak heure bi nii xam nga mu ñëw relax jël temps ci téléphone am di wax ak ay xaritam ak ay àndandoom ak ay sëriñam donc kon xam nga amul dara loo xamante ni war nañ fay def dara lu dul heure bi rek ñu woon waaji ne ko ñun Ndakaaru Njaay lañ dëkk si kàttu ne yàlla naa lay bomb tey incha allahu taala Fass Gueule Tapée Colobane tey day bomb incha allah. salaamaaleykum Assane. waaw bisimilah kilifa gi ñoo ngi siyaat bu wér. ñoo ngi siyaat bu wér. Euh, tey dañ leen gis ngeen teel a ñëw yéen yéen a ànd kan. ñoo ànd ak Balla Gaye 2. dégg naa sànq da ngeen da ngeen doon jàppante ak waa Gris Bordeaux parce que da ngeen toogaloon foofu Balla Gaye ñoom ñu ñëw ñu ne waroo leen toog foofu parce que ñoom ñoo leen njëkk ñëw. waaw ndax benn benn nit rek lañ fa koy fekk te ñoom ful ful leñ ak benn kay nit day xaw a métti mais biñ ñëwee ñoom gis nañ dañ nañ dëgg nga xam ne ñun ay champion lañ duñ ay booyu waya waya ñun suñu bakkan bàllaa ko moom barki borom Tuuba. est-ce que erreur bi Balla def ko parce que moom moo ne woon onze heures xaw ma communication boobu noonu yàqalu yàqalu ko si dara. du si dara xam nga lan la ñuy ñaan suñu borom defal ñun ndam lu seddu guy ñu ñibbiwaat géej géej géej waaye si kàttanu yàlla si guddi si rajo yi ñu nekk si barki Sëñ Fallou moom la ñuy ñaan suñ koy borom. instant ana Balla mi léegi léegi nga seen ko mu yegg si léegi yàgg yàggatul. lu muy indi parce que neen du jël gaal du jël oto. ah kon nga war a xam lan la war a koy jël séentu leen ko si kaw jaww jaww ji rek. Ah, waaw na nga def maaleykum salaam. ça va bien tey tey tey teel nga ñëw stade. teelu ma ñëw sax normalement danga naan parce que bii maa ngi fi presque ba trois heures du matin ma ñëwaat fi vers huit heures parce que événement bi moo ko laaj waaw parce que tey il faut ñu sécuriser lépp waaw. et surtout gisoo ñaari mbëri déjà dañoo ñëw euh, Gris Bordeaux Gris Bordeaux et déjà sur place léegi kii Balla Gaye aussi ñoom ñëw nañ di responsable bi donc moo tax il faut ñun ñu ñëw teel a sécuriser fii. parce que il paraît que y avait un. Euh, ambroglio waaw mais xam nga loolu du ñàkk mais loolu moo tax ñun bu ñu ñëwee rek déjà. Euh, hiérarchie police daf fi depuis ci guddi la fi yebal des en civil te gars yi xàmmewuñ leen ñoom ñoo ñëw gisoo bi problème amee ñoom ñoo ko réglé dañoo ñëw fi lañ fanaan daanaka ak ronde ak patrouille xam nga hiérarchie police nee dañuy jël yëf yi au sérieux moo tax affaire bi neex. 4 avril bi di gars yi dañuy répété am na am na tamit dispositif bu mët ngeen indi si stade bi. ma ne police day sécuriser moog gendarmerie donc vraiment fii moom na sax xel dal. service bu ci manti amit ñoom service dañ koy jël def ko comme seen yëfi bopp parce que service moom service la te fii moom incha allah na sa xel daal dinañ ko sécuriser ba nit ñi mën a ñëw ñibbi ci jàmm du am problème kenn du coow kenn du xuloo kenn du histoire ku bëgg histoire it ñu fekk si la ci ku bëgg jàmm ñu fekk si la affaire bi daal noonu la.